yëpp day dem ci Penda Mbaye xam ngeen ni soxna Penda Mbaye moo créé ceebu jën en 1947 ca Ndar xam ngeen ni ceebu jën moom mooy lekk bi nga xam ni plat bi nga xam ni moom la sénégalais yi gën a bëgg te ñàkkul attention le coup franc repoussé euh, par la défense euh, maa ngi delloo ziar. waaw di la encouragé tamit rek la wax. di la tamit parce que xam nañ ni. Mhm. entraîneur tu es un grand course gis nañ tamit début saison bi xaw a am tuuti difficulté rek mayonnaise bi ñëwagul mais gis nañ équipe bi mi football tey jii nii lan nga ma mën a wax tey jii nii ci match bi sa diggante yow Mbour Petite Côte. waaw d' abord euh, félicité adversaire bi encourager aussi samay joueurs ci xam ni dañu nekk dans un championnat donc. il euh, va falloir impérativement ñu am un comportement de compétiteur c'est vrai que on traverse ay moments yi xaw difficile mais tout compte fait, on a un groupe quand même qui a été remanié avec de, nouveaux recrues. Je pense qu'on est en train de travailler. Euh, défaite lunaire, une défaite n'est jamais belle, mais par rapport à la prestation, je pense qu'il y, a, de l'évolution. Donc tout ce qu'on va faire peut-être c'est de revenir encore pour que nous travailler surtout la finalité. Parce que vous voyez, par rapport à l'adversaire, je pense que le but que nous avons encaissé très tôt sur manque d'attention je pense que euh, retard sur le replacement moo ñu xaw tout mais je pense que si nous fait une évaluation euh, à mi-parcours, compte tenu des différents matchs que nous avons joués, je pense y a quelque part de la satisfaction. Bien vrai qu'il y a eu une défaite, mais on va continuer à travailler dans ce sens. Tu as dit que comme nous avons dit, c'est bureau, si 6 matchs ont joué, mm-hmm. d'après les 6 matchs, évaluation Je pense que déjà, euh, par moment, dans le contenu, mm-hmm il euh, n'y a rien à dire. Je pense que euh, les joueurs essayent d'organiser, essayent de respecter ce qui est demandé à l'entraînement. Il reste tout simplement à, finaliser les actions. Et je pense que ça, ça demande un peu plus de lucidité, de concentration. Je pense que ce fait que ce phase d'attaquer, convaincu en termes de billes, je pense que d'ici la fin de la saison, il y changements un changement. Parce que c'est une troisième question, que je sais que Wakam, l'équipe de Bohamne, nous avons des supporters qui ont pression, qui ont des de qui ni des dundee pression bi nga xamné ne tey jii nii fële ca waaw xam nga xam nga euh, équipe bo xamné amul ay supporters amul pression man damay wax mi ngi melni atay bu amul fourit uh-huh. je pense que suñu suñu su fekké supporters ils mettent la pression sur l'équipe mm-hmm. d'abord c'est des supporters du club. Mm-hmm. donc euh, joueur yi seen équipe motax ñu ñëw fi suñu défé lu bax ñu tàcc leen parfois il faut que ñu manifester seen mécontentement. Mm-hmm. mais je pense que gis nga légui biñu gënné joueur yi am ñu ñu leen doon tàcc. donc c'est qui veut dire que man li ma mënul nangu rek mooy ñëw di yaafuus ñu gagné la. mais ko xol xalé tey ji xam def nañ ci seen fulla def nañ ci la seen fayda ndam moo ñëwul woon tey donc on va continuer à travailler beneen match yàlla dinañ may ndam. waaw ñu ñëw rek ci événement bi rek moom mooy Sadio Mané mi nga xam ne tamit. Mhm. Euh, dafa blessé euh, muy élément bu clé boo xam ne ci équipe nationale la tey ci nii nan ko dundee ñu ne Sadio Mané du jeu coupe du monde. Bon, ça a été une triste nouvelle pour tous les Sénégalais, je dirais même pour tous les Africains et au-delà même de, l'Afrique parce que ça a dafa am ñu bari ñu parce que dafa am ñoo xam ne bu football joueur bu fekkee day def loo Lui Lui, luy football rek donc euh, quand la nouvelle est tombée hier je pense que euh, sénégalais, ils étaient complètement dégonflés. Mais ce sont les risques du métier. Je pense que ce n'est pas seulement le Sénégal qui a un joueur blessé, même si c'est que, euh, ce fait que ça c'est un élément clé dans l'organisation jeu de notre, de notre sélection nationale. Mais euh, on est obligé de, de s'adapter par rapport à la situation parce qu'une équipe, même si il euh, y a des individualités, je pense que euh, ce qui devrait être mis au devant de la scène, c'est le collectif. Mm, il appartient maintenant aux autres joueurs quand même euh, que quelqu'un accepte de, se s'ériger en leader technique et de prendre l'équipe en, en, main. waaw parce que vous, foofu ñu ñëw foofu comme ci c'est une dernière question rek moom état d'esprit bi nga xam ne tey jii nii. Mhm. joueurs la am ci mondial parce que un leader ku mel Sadio Mané au Sénégal mais le monde entier tamit am une déception ci Sadio Mané du jouer coupe du monde tey bon, état d'esprit nga y ni tey jii nii la xale yi mondial ça devrait une motivation supplémentaire pour ses coéquipiers parce que nous qui affaire je pense que ça a été le cas avec euh, euh, la sélection U23 je pense que les Jeux africains mm-hmm. ils avaient un coéquipier qui était décédé je pense que Lolo nous une motivation intrinsèque pour chaque joueur et ça a répondu dans le collectif je pense que euh, tous les joueurs doivent se dire que nous devons faire une très bonne Coupe du Monde, ne serait-ce que pour faire plaisir à tout le peuple sénégalais, mais également à leurs coéquipiers. Sadio Mané indisponible pour raison de blessure. Merci, content de Merci. En jox numéro bi kañ su ma pare. waaw yaay waaye ma jël numéro bi. ah non xam ah, nga ñoo bokkoon jara. waaw waaw téléphone bi. ma ne lay boy ban. Ah, waaw waaw man ak moom a liggéey ensemble. kañ ñëw rek ci marché bi. waaw marché bi laa leen. waaw ah, merci. <laughs> waaw moom dama dama ñëw boo kiiwee rek yow ma dem. waaw waaw. waa ñu ngi coach Lamine Sonko ñu ngi lay ziar. ah asmaa maa waaw di am mbégte rek di la tàllal micro ndax yaa ñu yar yaa ñu tette yaa ñu teg ci yoon bi kontaan nañ ci yow dañ lay ñaanal rek yàlla may la jàmm tey nag dañuy ñëw gis nañ seen match yéen ak euh, AS Ouakam gis nañ tamit une belle équipe de Mbour Petite Côte gis nañ taxawaay bi gis nañ tamit liggéey bi waaw ñu doon wax rek ban impression nga am tey ji nii si match bi seen deuxième victoire merci Asmamoun euh, ku la gisee rek kontaan euh, parce que da nekk si Euh, nga nekk di def liggéey boo xam ne bu bu ñëpp ay kontaan ñu ngi ñaan yàlla luy mën yàlla nañu yàlla jàppale yàlla ñu am en tout cas succès si li ñuy def yëpp euh, pour revenir si match bi bi nga wax ah yàlla xam na ne euh, bu ñu jógee Mbour dañu ñëw pour wuti trois points parce que place bu ñu nekk moo moo tax ñu ñefe pour wuti trois points mais dañu xam ne Wakaam équipe bu mag la moo tax ñu taxawaa taxaw taxaw taxawaay boobu bi nga gis nii euh, alhamdulilah ñu ngi sant yàlla di sant dirigeant yi dirigeant Mbour Petite Côte mhm. di sant ñëpp képp ku nekk si football bi yàlla fu ñu jëm ni yàlla yàlla may ñu ñu am sutura yàlla may ñu en tout cas euh, Sénégal dem kanam. Mhm. waaw tey jii mën nga ñu wax rek seen objectif ren Mbour Petite Côte. waaw loolu laa leen wax euh, depuis que maa ngi foofu. Mhm. dañuy nekk di reconstruire équipe. parce que joueurs yu mag yi ma xamoon Mbour Petite Côte nekkatuñu fa. defe naa de li ma fa gis. ñi ma fa xamoon defe naa ñaari ñaari joueurs xam nga ñetti joueurs ñoo xam ne très souvent sa daaw ñoon titulaire ñoo fa nekk. ça veut dire que dañu reconstitué équipe xale yu ndaw ñoo fa nekk kenn rek moo fa mag. Euh, moi Guelani moi qui marqué biir bi bon euh, il est tranquille mais le côté physique peut-être mhm. moo tax ñu ko doon aménager ni lu bëri mhm. mais nii dañu comprendre ñun ñu xam mhm. mais dañ koy aménager sur lu bëri waaw vraiment euh, si loolu Nous ñu nekk ñu ngi en tout cas équipe Mbour Petite Côte d'ici kanam incha allah dinañ gis am ay xale yu xarañ dëgg la jërëjëf coach Lamine merci beaucoup merci à vous la coordination, la bonne défense. ak l'international euh, Dieylaani Fall ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw ah, maa lay fay maa lay fay garaam maa lay baax. waaw di wax rek félicitation tey moom bii bi dafa teel nu mu demee noonu xanaa tey ay ay ginaar nga ah, ndékkeeg yooyu. c'est que victoire victoire soxla woon la quoi. parce que ah. boo xoolee sunu match yi yëpp boo xoolee dañuy war a gagné du ñu gagné. tey nag gars ñëw ni foog ñu def euh, jël trois points à l'extérieur quoi c'était ça l'objectif. waaw waaw d'accord waaw comme ni ngeen wax rek tey jii mën nga ma wax tey jii seen si match yi ngeen joué tey jii nii ñaata victoire ngeen ci am ak euh, matchs On a fait 6 euh, matchs. Hein? Ouais. Oui, 3 défaites, 2 victoires à Ben Nil. Mhm. Ouais. Mais comme championnat, c'est ça aussi. Mhm. Ouais. waaw d'accord léegi dañuy ñëw rek ci événement bi maanaam moom mooy Sadio Mané bi nga xam ne tey dafa blessé équipe nationale Sénégal lundi lay door première match am tey jii nii boo doon wax nan nga gisee euh, blessure bu Sadio Mané bi. waaw mais tu sais c'est dur de parler de ça parce que boo xoolee Sadio Mané moom xam nga dafa doon koo xamante il représente beaucoup. xaw ci ci ci ci dëkk bi quoi boo xoolee daanaka sax mooy leader bi tey boo amee leader boo xamante ne tey da à euh, même pas une semaine euh, coupe du monde bi mu blessé loolu ça va être très dur quoi pour pour pour pour, pour bi quoi xam nga franchement di ko ñaanal aussi mu mu mu mu wér ba mën a ñëwaat xam nga mu trouver sa forme waaw waaw dëgg la dëgg la li mu wax rafet na ñu ñaanal ko mu ñëw du Sadio Mané football maanaam coupe du monde bi rek moo tax parce que tey jii nii tamit dañuy bàyyi xel ci kan carrière am tamit loolu tamit mi ngi ci loolu moom euh, la Jeylaani wax muy lu rafet léegi dañuy ñëw tey jii nii comme Jeylaani état d'esprit bi nga xam ne tey jii nii moom la a am parce que am nañ boo xam ne daf ci tey jii nii boo doon sànni message euh, moromam ñi nekk foofu ñi nga xam ne tey jii ñooy représenté Sénégal loolu la ñu wax. waaw xam nga sa leader bu blessé moom boo ñëwee da ngay ñëw at euh, beneen beneen état d'esprit hmm. mooy da ngay yow da ngay représenté dëkk bi dignement parce que boo xoolee leader mi ñëw kon donc ñoom ñoo fa ne ñoom ñi fa nekk nag ñoom ñoo war a ñëw relever défi bi. parce que ay talent rek a fa ne boo xoolee booy tamit ay talent lañ mën nañu football mën nañ li ñuy def donc nag c'est à vous xam nga ñoom ñoo war a ñëw xam nga releve défi bi quoi. def coupe du monde bu baax xam nga si gil sénégalais yi ci ci Qatar. jërëjëf Djilane. merci merci merci Course. merci.